xanaa sant yàlla bu baax di wax ni session bi nga xamee mooy session 2019 2020 ñoo ngi ko ubbi woon le 15 octobre ba tey nekk wax dëgg yàlla Euh, le 1er juillet donc le 30 juin Dembe, lañ ko parce que l'olu, chartu assemblée nationale moo Moi, def mooy léegi benn session unique la ñu am muy commencer ci première quinzaine octobre di le 30 juin au plus tard mu nekk nag at boo xamee ni at la bo xamee bi ñu d'abord budget bi nga xamee ni dañoo salon. façon bi nga xamee moom la ñuy tëggee budget yi parce que xam ngeen ni ren la ñu dugaloon budget programme budget programme nag ci tënk mooy léegi au lieu budget nekk ay ligne yoo xam ne dañ naan ligne bi nangam la ñu ne léegi kat ni ñuy tëggee budget bi mooy ay programme la ñuy jël programme mooy Sénégal war nañu tabax nangami école xaalis sangam la ñu jël takk ko pour mën a tabax école yooyu ba nga xamee ni nii bu ñu demee di ko càmbar yow li ñu la voté loon muy xaalis bi dinañu la laaj école yi nga xamee ni moom nga waxoon moom ngay tabax tabax nga ko wala tabaxoo ko loolu nag du Sénégal boo ko inventé mais Sénégal dafa bokk ci euh, ay kuréel yoo xamee ñoom ñëpp dañu ànd juboo woon ci ni léegi kat budget yi nga xamee dañ koy def ci cadre UEMOA day nekk budget yoo xamee ni ay programme la parce que programme moo gën a neex saytu te moo gën a baax itam ci assemblée nationale yi pour ñu gën a mën a xam naka la ñuy saytoo alal ji nga xamee ni ñoo ngi koy wote ci wàllu budget di ko jox euh, waa euh, gouvernement bi pour ñu liggéey ko sama benn wax wax naa ne ren dafa nekk itam at boo xamee ni at bu doy war parce que dafa am feebar boo xamee ni dafa feeñ feeñ depuis le mois de novembre mais fii ci Sénégal nag depuis le 2 mars Le président de la république yekni ni am ram luy raam di ñëw ci réew mi te li di ci réew mi dañu tem pour mën a seet naka lañ koy xeexe loolu moo tax ci wàllu même ni nga xamee ne lañ waroon a programme yi lu ci parce que euh, ni nga xamee ni moom gouvernement bi tërale woon pour doxal bi mu amee riir moo xamee dafa am dal seen gis ngeen ni dañu jël ay matukaay loolu moo indi le programme bi nga xam ne defoon nañ ko muy programme d'urgence pour mën a euh, jàmbarloo ak feebar bi nga xam ni ñëw na loolu yëpp nag euh, bi ñu koy def il fallait que euh, ñu tëggaat budget bi mais comme mënuñu ko fi jaaralee di ko tëggaat ñu defoon benn loi d'habilitation voté ko muy loo xamee ni nii wax dëgg yàlla constitution bi moom moo ko may assemblée nationale bu fekkee ni président de la république ñaan nañu ko euh, assemblée nationale mën ko voté mu mën a jël ay dogal yoo xam ne normalement dafa waroon ñëw ci assemblée nationale waaye nag ñu may ko ko ndax bëgg gaawal mbir yi waaye nag loolu yëpp itam du tee lépp loo xam ni mayoon nañ ko ko mu dogal ko ci ordonnance mooy ci voie réglementaire balaa loola dugg ci loi bi dañuy indi loi yooyu pour ñun ñu man ko ratifier may yëgal waa Sénégal yëpp que ni ordonnance yi juróom-ñaari ordonnance yi président la république jëloon yëpp indil nañ ñu ko ba teg ko ci table assemblée nationale ba fi mu nekk nii xayma nañ ko bu dugal ko ci suñuy këyit bokk na ci li nga xamee ni incha allahu rabbi bu ci nekk dinañ ko càmbar ñun député yi seet naka lañ koy voté pour que loolu mën a am légalité bi nga xamee ni moom la ci président ak réew mi soxla. waaw budget bi xam nga fanweeri ministère la ak ñaar amul ministère bu nekk voté nañ la sa budget bu ku ci nekk da nga fi jaaroon ñu càmbar sa budget mais am na itam ay projet de loi yu am solo yoo xam ne jaar nañu fi ci wàllu ni nga xamee ni nii moom la ñuy e, saytoo ñi nga xamee ni dañoo def lu dëppuwul ak yoon te yoon teg leen loxo ñu bëgg a dugal li ñuy tuddee bracelet électronique ci euh, ci suñu dispositif judiciaire moom mooy loo xam ne daal dañuy xaw a yombalal ñi nga xam ne ni def nañu ay euh, ay njombe te du njombe yu garaaw yoo xam ne ni wax dëgg yàlla euh, du tax ñu mën leen a tëj bu boobaa ñu seet nan la ñuy mën a waxtaane ba juge d'application des peines seet naka la ñuy mën a leen di takkale ay bracelet di leen saytu di leen xool xam nga yooyu itam ay développement la yoo xam ne yu am solo la am na yeneen yoo xam ne def nañ ko ci wàllu urbanisme del nañu ay projet de loi yu bëri yoo xam ne nii jàpp naa ni ci session bi war na mat fanweeri loi ak juróom yoo xam ne bu ci nekk saytu nañ ko jàng ko fii ci assemblée nationale diggante rek bi nga xamee feebar bi dugg na ak tey am na lu ëpp fukki projet de loi ak juróom yoo xam ne saytu nañ ko fi loolu day wane ni assemblée nationale même bi mu joxee habilitation président de la république am na ci domaine yo xamé ni nekul won ci habilitation bi buñu ci waree liggéey dañ ci doon dajé di ci liggéey ak nak samonté li nga xamé mom le borom xam-xam yi wax li nga xamni mom le la docteur yi wax ndax itam euh, fièvre la bo xamé dafa dugg ci suñu réew té japp nañu ni fièvre bu féké amul garab amul ñak bu ko mëna ar, liku mëna ar moy fexé ba li docteur yi wax moy ñu dëkkook set di setal suñu loxo di masque di fexe itam ba ñuy sore loo xamee am na distance su euh, lu mu néew néew benn mètre bu demee ba mu nekk mètre genn wàll moo gën mais daal en tout état de cause fu ñu toll dal ñu sàmmonte ak li nga xam ni borom xam-xam yi wax nañ ko te jàpp nañu ni loolu mooy garab bi nga xam moo gën a wér moo gën a wóor ci aar ñu ci feebar bi. waaw xam nga euh, ñun dañu am lu la wax sank depuis le 14 mars président Moustapha Niass dafa woote wax wax bobu sax amna solo trop parce que wax nañu dañu wax ak réew mi wax ak kilifa diiné yi nekk ci réew mi wax ak kilifa aada yi nekk ci réew mi wax ak leader d'opinion yi ci réew mi ñun ñëpp ñu sensibiliser ni leen lii di ñëw dafa laaj taxaway. yamuñu fofu nous sommes... ci encore une fois dama koy wax ku ne mën nga ko xeeb waaye bari na kuy fekk dara député yi nous ah, ñu jël assemblée nationale Nous seen nous ñu dajale 50 millions de Covid bi fonds le comité national de lutte contre les épidémies nga avons mooy le bi euh, épidémie Sénégal ñu waxtaan ak pour ñoom itam ñu am luñ leen laaj liñ leen laaj itam ñu qu'ils ont ci ay tontu yu xaw a dalal suñu euh, coronavirus bi mais itam yamuñu foofu mais ñu xool ak sax ëllëgu Sénégal ci euh, yu mais ëllëgu Sénégal ci wàllu nu ñuy suñu structure de santé yi bu li nga jot nañ ko def ci réew mais nga dem ba yag nga am ñaari junniy lal yo xamé mën nga ci recevoir ay nit kon amna na ay jéego yu ñu def kon jego yoy nak, naka lañ koy consolider naka lañuy fexé ba jéego yooyu mu baña nek lo xamé ni dañ ko def rek parce que tay xewna mais ñu fexé ba mu jeexital ci sénégalais yi nek lo xamé tam day sax ci biir Sénégal defe naa loolu ay jumtukaay la yo xamé ni ñun ñëpp war nañ ci xalat té lolu assemblée nationale am ci rôle bu mag bu ñu rafet parce que li tax mu rafet mooy euh, président dafa am ñaari discours discours bu njëkk bi damay wax ni discours de responsabilité la mooy nga war a taxaw taxaw nga dem ba ci biir nga xam ni sa peuple dafa sonn ba am na sax nit ñoo xam ne xañ na boo leen téewul woon boo boo jël woon mesure d'assouplissement yi ñooy génnal seen bopp am na nag ñoo xam ne ni xam nga réew mi am na bis bu nekk am na ku tëdd naan ñu génn sax ba xeex am ba kenn dee ci wala kenn faatu ci xam nga nit ñi ku nekk ak ni ngay xalaate mais président loolu yëpp dafa jël avance bi mu waree yolomal mu yolomal mais na surtout mu wax nit ñi dafa nekk responsabilité boo xam ni man ci suma biir kër dama ko am boroom kër gi daf ko am chef de village bi daf ko am chef de quartier bi daf ko am euh, kilifa daayira bi daf ko am chef bi daf ko am kilifa aada bi daf ko am ASC bi ci koñ bi daf ko am mbootaayu jigéen ñi dañ ko am badjanu gox bi ci koñ bi daf ko am pour ñu xam ni dafa am responsabilité bo xam ne suñu responsabilité bop la parce que bugguñu fièvre mais bugguñu wàll fièvre bi kenen mais am benen responsabilité collective bo xam ne dañuy and def ko te lolu yomb na moy de leen sol masque ma ngi wax ak yow parce que maag yow suñu distance de deux mètres lolu motax mu wàccee ni suma masque te kenen nekku fi mais bo fi génné damay sol sama masque booy génn ci mbedd mi damay sol suma masque loolu nag maa ngi sol suma masque maa ngi raxasu suma kër bu ma ñëwee suma biir kër bala may dugg suma biir kër am na fa paan bu ñu fa def damay raxasu ba pare soog dugg ci biir kër gi yàlla xam na ko parce que li may wax ku dem fa ku dem suma kër tam fekk ko fa bu ma duggee ci biir kër gi itam samay gone dama leen di wax ni bàyyi leen jaxasoo bi dematuma fenn ci benn jataay boo xamee ni dinaa fa fekk lu mat fukki nit wala ñaar fukki nit lu mënul ñàkk rek laay def mais lépp lu mën a ñàkk dootuma ko def ah déedéet manuma ko gisee nanu parce que président de la république xam nga mbir bu fekkee dafay ñëw te xamoo nu muy ñëwee boo jëlul woon matukaay mu ñëw faagaagal ay millions sénégalais lan la sénégalais yi di wax il fallait président taxaw parce que lii ñëw ñu nag américain beeg chinois bi ak français bi ñoo ci yem kenn xamul naka lay duggee suñu réew te gis ngeen ni mu faagaagale ay nit ca France gis ngeen ni mu faagaagalee ay nit ci Amérique ni mu faagaagalee ay nit ca Brésil kon président de la taxawaayam mooy jël ay matukaay yu mat wax ni ah nañu taxaw waaye nag mbir mu nekk itam da ngay adapter sa stratégie ak mbir mi nu muy doxe boo demee ba gis ni xam nga Sénégal il faut ñu waxante loolu euh, junniy sénégalais yu nekk juróom-ñetti nit ñoo ciy dee par at. en moyenne moom la wax un taux de mortalité de 8 pour 1000 ci Sénégal par at mais feebar bi dugg na ci suñu réew ñent ñent weer a ngi mu nekk suñu biir réew ñun ñëpp Sénégalais yëpp xam nañu lan moy coronavirus mu ray téméri nit ak juroom ñett tay xañ na téeméeri nit ak fukk wa wax dëgg yàlla d'accord Sénégalais bu dee rek metti na Sénégalais bu dee rek te ñu war koo mën a aar ba du dee rek war nañu am boobu taxawaay mais lii xew tey du mbirum rek feebar ak dee mbirum économie la mbirum social la yéen xam ngeen ni Sénégal téeméeri nit yoo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñaar amuñu xëy boo xamee dañu naan bu ñu xëyee rek bu weer deewee ñu fay ñu dañu war a xëy dem tool wala ñu xëy dem ci atelier yi wala ñu xëy di daaba daaba pour mën a am lu ñu yóbbu seen dépense mais ñooñu boo leen tëjee. baa doo indi saafara boo xam ne day jur jàngoro bu gën a metti jàngoro bi kon un président de la république buy wax dafay seet lépp day waxtaan ak docteur yi mais day xool ci wàllu économie ci wàllu impact bi feebar bi am ci sociale bi loolu moo tax d'ailleurs bi muy def dimbal bii ñuy wax ci wàllu ceeb te bëgg naa Sénégalais yi jàpp ko bi Sénégal nekkee Sénégal ba tey amul ben état amul ben gouvernement bu mës a jël juroom ñaar fukki milliards jëmele ko ci nit ñi amul ben gouvernement bu mës a jël lo xamé ni nii boo dina laal lu ëpp genn walu doomu aadama yi yeewoo Sénégal parce que tay distribuer lo xamé tay touché na 1 million cent euh, ménages ba pare nga xëyaat yokkaat ko parce que président wax nako pour seetaan ñi nga xamé tam dañoo amone lo xamé daf leen galankor ci jamono bi nga xamé ni nit ñi dañoo tëju mu ne dinaa yok jappalé bi ba mu yagg ci jom lool yépp nak jàpp naa ni bu fekkee da nga koy évaluer xool itam limu def amna ñu réew yu bari yo xamé seen économie dafa nek en récession tay président bi muy wax dafa ni deug la amoon nañu 6,8% mais suñu croissance mën na dem ba nek 1,1% virgule amna ño xamé waaye ngi ci moins 5 ak moins 10 ak moins 20 kon dama jàpp ni bu jëlul woon matukaay yooyu plan de riposte boobu pour ñu xeex xañ na suñu économie day gën a nërmeelu mais nag loolu mu def moo tax xañ na laal nañu waaye nag wax dëgg yàlla jéggiwul dayoo te loolu nag lu am solo la parce que feebar baax na waaye nag feebar bu jéggi dayoo nag boobu baaxul ñu voté woon mooy habilitation mais bi mu defé programme bi ñewul di di ñu ko posé waat ñun assemblée nationale parce que exécutif mom mom loolu mom mo def li ñuy wax le plan de riposte boobu moy plan wu 1000 milliards yi fi ñu ko jëlee itam moo ñu def loi bi nga xamé moy loi rectificatif des finances ñu indil ñuko ci ordonnance kon bu ñu jotee ordonnance bi comme jot nañ ko dinañu xam fan lañu jëlé ak fan lañu duggal mais lu ci nekk dafa am jamono gis nga amul lenn lo xamé ni def nañ ko ci programme par exemple programme de distribution des vivres xam nga programme la bi ñuy ubbi dama la wax ni légui Sénégal ci budget programme la lay liggéey xam nga dina yomb pour ñun bu ñu jëlee kayit yi xam nga def nañu déjà un comité de suivi comité de suivi am na ay députés yu ci nekk programme yooyu yëpp dañ koy indi assemblée nationale ñu xam ñaata lañ leen joxoon 70 milliards wa mais 70 milliards bi ngeen di jënd vivres yi ñaata ngeen ko jëndee bi ngeen di transporter ñaata ngeen ko transporter ñi ngeen doon fay naka ngeen leen fay loolu yëpp dina am jamono boo xamee ni dina ñëw fii ci assemblée nationale ñu saytu ko ci cadre programme bi. loolu tam ma ngi ci dalal xelu sénégalais yëpp. que amul lenn loo xamee ni dinañ ko def ci Sénégal loo xamee ni exécutif dina ko def te du ñëw fii assemblée nationale ñu càmbar ko pour jox leen cutis en dehors de l' assemblée nationale mais y' a tout euh, corps de contrôle yëpp cour des comptes mi ngi fi. amna ay organe de contrôle commission de vérification ñi daan def organe de contrôle la yoo xam ni ku ci nekk mën nga def càmbar bi nga xamee ni moom nga wara a càmbar ba ñu xam ni li nga xamee ni waxoon nañ ni dañ koy duggal ci bërëb bii dinañ ko fa duggal set naka lañ ko fa dugale li ci dess ñu xam ko li nga xamee ni dafa manqué tam ñu xam ko parce que ëllëg dañ ko wara a est-ce que du trop tard bu ñu xaar nekk di waaj ba loolu passé ñu soog a déedéet mënul trop xam nga dafa am euh, euh, ci wàllu saytu dafa am ñaari saytu dafa am bu ñuy tuddee a priori le contrôle a am lu ñu tuddee le contrôle a posteriori contrôle bi nga xamee ni bala ngay def sax da nga naan nañ ma voteel loolu ñoom def nañ ko parce que avant ñuy def xayma nañu ba évaluer ni nangam mooy war a doy pour ñu def ko ñun li ñu war mooy le contrôle a posteriori mooy bi nga xamee dangay def ba pare ñu soog a ñëw xool xam nga contrôle lu tax ñu koy def dañ koy def pour ñaari mbir pour bu ëllëgee booy def nga xam fooy teg sa tànk parce que contrôle boo gis njàngat la ñaareel bi dinañu contrôle tam pour sanctionner mooy wax ni li nga war a def li ñu bëggoon nga def ko defuloo ko kon nag yow abal ñu contrôle mën na dem sax ba ñu jël nit yóbbu ko ci yoon loolu yëpp am na mais li jëkk a ju tax a jóg contrôle d'abord mooy nga xool ndax yi fi jub na du contrôle police est-ce que jub na est-ce que fiñ ko war a jaarale jaarale nañ ko fa est-ce que bu ëllëgee bu ñu amatoon mbir mu mel nii fan la ñu war a teg suñu tànk ba gën ko doxal bu mu gën a baax yooyu yëpp ci njàngat la bokk parce que doomu aadama fekk mi ngi dund mi ngi jàng oui euh, dama koy partager mais moom rek defu ko est-ce que xam nga ni ñun ci suñu biir majorité am nañu poser ay questions d'actualité ci ku domaine boobu mais ñun du ñu def publicité bi ñun képp ku ñu war a déglu dinañ la déglu gis nga saa bindee yóbbu ko ci presse bi te assemblée nationale dajeegoo dajeegul sax pour waxtaan ji yow koy am na leneen looy wut mooy da nga bëgg a wax ni yaa ngi taxaw taxawaayu kuy saytu waaye ñun ñëpp ñu ngi saytu am na ñu nekk suñu biir question d'actualité yi ñu bind duma la ko wax mais jëm na sax ci loolu mais loolu yëpp dina am jamono boo xamee ni incha allahu dinañ ko def te bu on dinañu confinement bi ba nga presse télévision bi dinañ fi député ministre parce que nous avons nañu sañ-sañ ci cadre budget programme programme bu assemblée nationale ni la kat programme bi dañ la ko dañu bëggoon ñëw ngaaw ñëw waxtaan ci ak ñun. commission mais aussi bu ko plénière avec les questions d'actualité kon jarul xam nga ki nga

gouvernement mënul def dara dara dara dara ci walu su assemblée nationale ñu autoriser ko budget que nga ni gouvernement daf koy teug pour mëna doxal réew mi su ko wul assemblée nationale ñu adopté ko kenn wu ko def bo xamé ni sax dañ ko wara président mënul ministère de des finances mënul dem diko lebi loolu la charte réew mi ku ne war nga xam ni amul benn programme économique boo xamee dafay mobiliser ay ressources yoo xam Sénégal moo ko moom wala ñu koy jëggaani biir bitim réew su assemblée nationale joxewul autorisation. loolu mooy noonu la Sénégal mës a doxee gis nga constitution bi bañ ko jëkkee def 59 la ñu changé ko de bu def constitution 61 bi fédération Mali deewee defaat ko 63 bi nga xamee ni nii crise bi am na en décembre entre Senghor ak Mamadou Dia. En 2001 ci Ablaye Wade bi mu ci pouvoir la am constitution bi toujours wax amul bu ci waxul budget dañ koy indi Sénégal lepp lu ñuy xeyma dañ koy xeyma indi ko fi ci pencu ndaw réew mi Non ndaw réew mi la